dal leen jàmm ci seen émission ruban rose ruban rose nag boo leen ko gisee xam ne ñu ngi ci octobre rose di weer bi nga xamante ne moom la ñu jagleel euh, xeex jàngoroy cancer bi jàpp ween ñu naan ko cancer du sein gis ngeen ma man ak sama ruban rose euh, professeur yaa ngi ak sa ruban rose mm-hmm. lii moo waral tey euh, waxtaan bi ndax ñaax dafa am solo émission bi nag man Awa Mbaye di leen ko présenté ngoon gu jot euh, ci euh, TFM groupe bi yëpp nag bokk ko li ko waral mooy euh, président Youssou Ndour dafa bëgg moom itam kër gi di groupe Futur Média bokk ci xeex bi ndax ni ngeen ko gisee RFM TFM l'Observateur IGFM toutes les entités du groupe Futur Média saa su ne ngeen gis leen dégg leen di leen seetaan ñu dugal seen loxo ci li nga xamante ne moom mooy ñaax bi depuis le premier octobre ba léegi doox na ah, tey nag ñuy commencé ak fii ci ah, TFM ah, kon tey émission numéro 2 gannaaw bi ñu defee émission numéro 1 ba pare tey ñuy dalal professeur Fatou Sama Ndiaye professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Awa. di la dalal. merci jërëjëf. yaa ngi ci biir octobre rose. maa ngi ci biir. voilà kon <laughs> euh, octobre rose commencé na fépp ci ci àdduna bi war nga këpp sax laay wax. Mm. Euh, commencé na professeur yow ñu lay dalal yow yaa jiite service hématologie bu hôpital Dalal Jàmm fële ca Géejawaay. Mm-hmm. yow yaa jiite tamit association femmes médecins du Sénégal. Mm -hmm. ñu lay dalal kon ci double casquette gannaaw uh, faj bi dafa mm-hmm. metti te yàgg. Mm-hmm. waaye lu mu metti yàgg boo teelee jukko nee nañu di nga ci am uh, bénéfice mooy uh, wër. wér nag ñëpp ko bëgg ci faj bi ñoom hématologue yi ñu ñuy wax lan moo ci seen part ba ñu mën a bokk ci li nga xamante ne moom mooy ñaax bi professeur yow bu ñu waxee cancer du sein lu njëkk la ngay xalaat. bu ñu nee cancer du sein li may njëkk xalaat mooy coono bu muy teg jigéen ñi. ak pronostic bu sévère bi nga xamante ni dañ ko ci gis bu fekkee ni malade bi yéex naa ñëw hôpital. Mhm. bu ñu nee cancer du sein damaa ngi xalaat octobre rose. Mhm. moom mi nga xamante ni moom la ñu jagleel euh, feebar boobe di def ay dégâts yu bare ci mhm. ci àdduna bi. Sénégal nee nañu euh, at mu jot lu tollook 1834 femmes dinañ diagnostiqué ne ñii am nañu euh, jàngoro cancer bi jàpp ween. tout à fait plus de 1800 cas cas par année. donc plus de la moitié ñoo ci faatu mhm. malheureusement mhm. parce que bu ñuy ñëw day xaw a trop tard mais buñ ci teelee jóg euh, l'histoire a montré que ñu ci bare de plus en plus di nga gis ay témoignages yu femmes yoo xamante ni wér nañu ci seen cancer ñoo ñu ñoo joxe exemple yi pour jigéen ñi di teel a jóg teel a fagaru teel a gëstu seen yaram pour mën a faju rapidement nu mu gën a gaawee loolu mooy message clé bu octobre rose maanaam jigéen ñi nañuy teel di nemmeeku seen yaram gannaaw fagaru bu teel bi yenn saay nga nga yenn saay nga bëgg koo def yenn saay doo ko mën a def waaye li nga xamante ne moom mooy dépistage précoce mhm. mooy li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo ci xeex bi ak feebar bu mu mën ci doon mhm. boo teelee jug dem l'hôpital euh, kër docteur dina la wutal pexe mooy traitement bi nga xamante ne moo ci gën ngir yow tamit boo ko toppee nga mën cee am wér-gi-yaram mhm. cancer bi jàpp wenn ci la bokk ci àdduna bi wërngal këpp am na dëkk yoo xamante ne euh, léegi ñi ci ñàkk seen bakkan bareetul ndax jigéen ñi dañuy teel a fàggu jug dem l'hôpital ñu fajal leen ko ndax traitement yi am na ci dëkk yu bari Sénégal ci la bokk yow ci sa wàllum xam-xam voilà hématologie euh, mm-hmm. daanaka xam-xam bu yaatu la ci paj mi mm-hmm. ci xam-xam bu yaatu la ci paj mi surtout que ñun ñooy saytu effet secondaire u traitement yooyee nga xamante ne dañ koy jox malade yi te traitement bi ñu fàttali ne am na chirurgie radiothérapie chimiothérapie chirurgie lépp ci biir mm-hmm. parce que yooyu yëpp médecin bi bu gis gisee ca njëlbeen xool ba xam fan la stade bi toll. Mm-hmm, mm-hmm. dina décider ou mu commencer par chimio. Mm-hmm. daal di ciy teg chirurgie bu fekkee ni masse bi dafa rëy daal di ciy teg radiothérapie pour clôturer et donner le plus de chance à cette patiente la pour mu mu génn ci. mais phase yooyu yëpp bu ci ne dafa laaj suivi évaluation pour ñu mën a xam ndax dafa am ay effet secondaires yoo xam ne foog ñu teel ci jóg. balaa muy gàllankoor traitement bi parce que effet secondaire yooyu lu ci bare ay manqué deret la mhm. anémie bi moo wër mooy gën a gàllankoor traitement bi day tax ba doo mën a respecter protocole bi normal looloo tax mu laaj suivi sur le plan hématologique ñu xool ndax danga nga anémie ñu may la deret ndax da nga am plaquettes yu wàcc parce que plaquettes yu wàcc day indi saignement. Mhm. ñu may la plaquette wala ndax da ngaa may infection yu teel la jox ay antibiotiques pour mën a respecter euh, intervalle traitement yooyu parce que pronostic bi ci respect intervalle cure yi ci la bokk. Mhm. kon bu ñu waxee anémie xanaa yaa ngi dégg professeur lu ñuy wax ne banque de sang yi euh, dafa manqué deret kon may deret ndakate lu am njariñ la ci ñëpp la gën rawatina ci ñi nga xamante ne ñu ngi dund jàngoroy cancer bi jàpp ween ñu leen di defal chimiothérapie ñu soxla ko tout à fait dama ciy profito pour woowaale suñu mbokk sénégalais yi pour ñu mën di dem di maye ji deret mhm. OMS dafa ni il faut au moins dix dons pour mille habitants ci benn circonscription. Mhm. Sénégal xaajunu yegg foofu. looloo tax j'en profite toujours pour lancer un appel pour le don bénévole du sang parce que deret googu ñi feebar soxla nañ ko accidenté yi soxla nañ ko. jigéen yu wérul yi soxla nañ ko parce que bu leen fàtte ni tamit euh, hémorragie du postpartum day rey jigéen yu bare donc deret. toujours dañuy ñaan yàlla nit ñi mën di defe ji ay doom doomu bénévole pour ñu mën ko dimbale tout cette couche de la population mhm. yoo xam ne da ko soxla surtout ñi nga xam ne dañu am ay cancer mhm. nekk su su traitement par chimiothérapie kon daal chimiothérapie bi bu euh, jaaree yoon euh, maanaam jaar étape yëpp ku jigéen ki teel a jóg euh, mën na ci wér tout à fait bu jaaree yoon ñu teel ko diagnostiquer xoo teel a xool stade bi phase bi ñu définir le plan de traitement bu soobee yàlla da nga ciy génn d'ailleurs de plus en plus da ngay gis ci marche octobre rose yi des patientes guéries de cancer du sein ñuy ñëw de plus en plus pour témoigner à visage découvert pour wan nit ñi ni boo teelee faju di nga ci génn ci ci feebar bu metti boobu. Mm-hmm. jigéen ñi ci weer bari na j'en connais beaucoup di leen euh, fësal euh, sunu sargal jëm ci euh, ñoom ndax ay jàmbaar lañu. Mm-hmm. paj mi dafa metti te yàgg waaye ñu ànd ak gëm-gëm ñi nga xamante ne nag ñàkk seen bakkan ñu ngi leen fa ñu nekk gën a leen euh, fi ñu euh, jugee euh, professeur gannaaw hématologie mhm. yow yaa ngi jiite jigéenu Sénégal yi docteurs yi médecins yi comme on dit mhm. daaw amoon ngeen activité yoo leen defoon ren tamit di ngeen def. ren dañuy def chaque mois d' octobre ñun euh, waa association des femmes médecins du Sénégal mu ngi noonu moo tax dañuy def ay activité le 12 bu soobee yàlla am na nañu benn journée rose bu ñuy wax. à propos du stress où on a invité les femmes médecins du Sénégal on a invité même les hommes médecins ou pas ñëpp déglu par rapport au stress comment gérer le stress ndax bu ñu fàtte ni stress boobee ci facteur de risque de survenue de cancer ci la bokk moo tax dañuy discuter ci stress xool naka la ñuy def pour éviter au maximum le stress qui fait partie de facteurs de risque de survenue du cancer. Mm-hmm. yéen seen association bi bi ngeen ci nekkee ba léegi euh, ci xeex euh, jàngoroy cancer bi jàpp ween yan activité ngeen ci def en dehors octobre rose di bi nga xamante ne moom la ñu jagleel ñaax bi Sénégal ak fépp en dehors ci weer bi lan ngeen ciy def leneen. alors yi ci gën a def mooy ubbi benn cagnotte wax toutes les femmes médecins ñu joxe verse pour ñu jàppale liska LISCA ñun déjà femmes médecins ci lañ bokk bokk nañ ci conseil d'administration de la LISCA euh, pour ñu jàppale pour xeex bi. lu ci bare dañuy def sensibilisation au niveau de la base parce que pour ñun loolu moo ëpp solo dem defi de petite capsule dugal ko ci réseaux sociaux yi pour wane comment palpe le sein xool boo amee ay doñ ji sax yaram naka ngay def et cetera lu ci bare aussi dañuy dem defi ji ay ay marche wala ay yenn activité pour sensibiliser parce que ñun dañu xalaat ni il faut vaut mieux prévenir que guérir nañu sensibiliser les femmes les hommes aussi. Mhm. parce que le cancer du du sein existe chez l'homme mm -hmm. c'est encore plus sévère. Mhm. ñu sensibiliser pour nit ñi xam lan mooy cancer du sein. Mhm. naka la ñuy def pour teel ko dépister diagnostiquer ko traiter ko pour mën ci am de bons résultats. professeur Sénégal euh, ñu ci bari dañuy jàmbat ñu ne faj bi dafa cher. hôpital euh, boo fexee sax ba teel a dem Euh, la cay dugg ca koppar bari na bari goo xamante ne mhm. am na ñoo xamante ne du ñu ko eggale mhm. te même boo commencé sax doo ko eggale te yenn saa yi feebar bi euh, dafay euh, law ci mhm. faj mi pour yow lan la ñu war a gën a mën a def ngir woyofalal ko mu jëm ci askan bi ndax euh, bu ñu xoolee sax chimiothérapie xam nga dañu ko mayee ci jigéen ñi. tout à fait léegi lan la ñu mën a def ndax faj mi nag dafa cher du. chimiothérapie rek. cher na moo tax foofu la ñuy gën a xeexee c'est vrai que état du Sénégal def na effort yu bari depuis 2019 je rappelle que depuis 2019 la chimiothérapie est gratuite faj bi garab yi c'est gratuit. mais li gratuit wul ba léegi mooy intrant yi perfusion bañ lay defal tube tube seringue ya les bilans yi lay demandé IRM ya scanner ya mammographie ya échographie ya yooyu ba léegi gratuit wul looloo tax ñuy ñaax sunu njiit yi pour bu ñu mënee gratuit wul lépp tout le parcours de soins bu gratuit rek bu boobaa xëy dina woyof loolu ci ci malade yi ak seen i accompagnant ak ñanu ñanu nekkal. Mhm. sa message booy tëjee professeur. insister sur la prévention sur dépistage systématique bi l'autopalpation du du sein je propose même ñuy def ay spot di wane naka la ñuy defee autopalpation du sein mhm. depuis collège depuis xale yi jigéen yi ñu won leen naka la ñuy palper ba nga xamante ni waxtu boo ci gisee benn donj bu ndaw ci ween bi wala ci poqataan bi nga daw gaaw rapidement parce que l'expérience a montre plus nga teel a jóg plus nga mën a jël génn ci feebar bi sans pour autant muy am ay complications désastreuses ci cette patiente là. waaw Kumba waaye kon euh, professeur faatu euh, Samba Ndiaye. Mhm. moo nekkoon tey euh, sunu gan ci ruban rose ci TFM di émission bi nga xamante ne télé bi moo leen ko jagleel groupe yëpp nag bokk ci soobu si dugal ci seen i ndax dañoo bëgg jàngoro ji dellu ginnaaw bu baax professeur Sam Fatou Samba nekk chef service hématologie bu hôpital Dalal Jàmm fële fële sa Géejawaay moo jiita tamit association femmes médecins du Sénégal jërëjëf jàmm ak jàmm